Tafatine contre Boignan 2, le choc des titans. Suivez cet événement exceptionnel au Sénégal et partout dans le monde grâce au pay-per-view. Rendez-vous sur la plateforme lambdiaspora.com sur pay-per-view event et cochez sur la rubrique live. Vous accéderez ainsi à deux propositions. Le ticket passe pour une personne à 9,99 euros et le ticket passe pour deux personnes à 19,98 euros. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents modes de paiement en ligne vous seront proposés, à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec l'application Africa Mobile Money, le paiement par carte avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient de plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, Pour le paiement avec la carte bancaire, les informations demandées seront votre adresse email, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. Payer et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Léoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Léoto Production.